le premier mai kenn du liggéey kenn du jàngi kenn du dem fenn looloo tax jàmbaar production woo leen ca arène nationale daal di boole ñaari génération yu bokkul déglu leen bombardier le B52 de Mbour toujours roi des arènes aller ak retour di ndaanaan kullu faddalin moom nag la ñu jël daal di koy booleeg xale bi nga xamante ne nii bi mu duggee ci làmb ak léegi déggagul mu ñëw kooku nag mooy doomu Parcelles Assainies ñu gën koo xam ci franc super franki def lu ne ci lutte sans frappe combat spécial bi war a dox ci diggante Youssou Ndour di doom ci Balla Gaye nekk ci école Balla Gaye mu war a jàkkaarloo nag ak xale bi gën a xajam ci génération am Talfa Gamer bi di Ndiaye du xam ngeen ko dina fa jàkkaarloo ak Ndiaga Thiam Fadam Junior dina fa jàkkaarloo ak Jaasi Pël Bay Jóob Safara bu Géejawaay dina fa jàkkaarloo ak Ñang Baalo Caatu Piol jàkkaarloo fa ak Caatu Limousine Julo dina fa jàkkaarloo ak Caatu Yëmbal Usine bu Nangal ma jàkkaarloo fa ak Boy Fandeen Boucher numéro 2 jàkkaarloo fa ak Frambeur Aigle dina fa jàkkaarloo ak Dun bu Faas mbokk yi loolu yëpp ngeen mën ko am ci bésu le premier mai ci arène nationale point du xam ngeen ko daw leen gaaw jënd seen ay code balaay xat entrée supporter 2500 francs amateur 5000 francs loge officielle 10 000 francs production tooñu ñu kenn te bu ñu tëggee ñëpp békk le temps pour que nga gën a rafetal sa carrière pour man jot na boo bëree combat bi nga honorer le monde de la lutte ci spectacle ci combat bu neex ci comportement bu rafet après ñu gungee la organiser un jubilé à à l'honneur de de de tes prouesses donc euh, mun nañ song le dernier euh, act le dernier thème euh, maanaam actu actu cinq donc le grand technicien dugalal ñu sur le thème de du combat Ama Sène taf la ci Sa Thiès voilà mun nañ commencer avec xalifa donc euh, le combat du premier mai di 5 mai diggante Sa ak Eumeu Sène donc euh, on salue également le promoteur Baye Ndiaye euh, de Alburakh Event ak son grand frère Aziz Ale Ndiaye donc des acteurs de la lutte ñu bëgg làmb xam ko nekk passion ci moom donc ñu offrir ñu un combat vraiment très beau euh, pour le 5 euh, mai mu nekk derby entre Pikine ak Guédiawaye nekkoon nga président Tay Shinger xam Eumeu Sène bu baax combat bi noo ko jàngate waaw combat bi ni ñu ko jàngatee mooy comme je crois combat yi ni ñu doon jàngatee combat yëpp rek que nii Eumeu Sène moom je crois que ay ay ay jalooreem ak ay ay ay qualitéem ci làmb mm-hmm. Euh, acteur làmb yëpp euh, xam nañ ko donc ñun wàllu wu ñu féete duñ mën lu dul rek ñaanal ko yàlla vraiment euh, nda làmb ji mu jëm suñ borom defal ko ci ndam ndam lu sedd guy waaw suñu ñëw ci analyse bi nag combat bi dafa xaw a ak combat bi nga xam ne moom lañ doon waxtaanee léegi muy bombat bombardier ak franc mais dañoo wuute dañu wuute parce que tout simplement Eumeu Sène dafa bett Sénégalais yëpp ci dernier combat bi mu bi mu bëri mais dafa parce que dafa daanu hmm. mel ni moo daan waaw parce que tafatin sax moom su waxee la yàlla xam na ni hmm. xam na ni combat boobu défaite <laughs> la de par nu mu déroulé de par waa ji nu mu ko affronté hmm. pour dire rek ni Sa moom xam naa ni day ñëw comme moom mba magam da doon bëre ak ak Eumeu Sène. Mhm. Eumeu daan ko ñaari yoon. Mhm. je crois que day ñëw pour laver cet affront là mais Eumeu dafa nekk mbër moo xam ni dafa yàgg ci bëtu sénégalais yi. Mhm. ñu bëri yaakaar nañ ni moom am na sax xëy na cinquante ans. mais dafa nekk mbër moo xam ni man ci li ma xam ci moom. nekk na mbër moo xam ni dafa am hygiène de vie. te wàllu entrainement moom daf ko daf ko daf ko daf ko miinal boppam donc su fekkee ni làmb ji Eumeu Sène entraîné na normal entraîné na ba ñuul entraîné na ba dongali Sa Thiès amul amul sens pour daan ko Sa Thiès amul sens pour honnêtement parce que Eumeu Sène pour nga liir ko moo jafe dafa nekk mbër moo xam ne neexul la liir dëgg la parce que ana image Eumeu Sène yi si soit open press bi wala soit si shooting bi ñu xoolaale ko. ba xam ndax réellement entraîné na. parce que Eumeu Sène boo gisee muy muy muy muy nax gars yi. Mhm. muy nax mbër yu bëri. Mhm. mooy que ni dafa am de facettes facettes. jàkkaar jàkkaarloog yow. Mhm. ndaama ngay gis. ci bëri bi ndaama ngay gis. mais su ngeen di bëree njool ngay bëreel. centre bi. waaw. su jàkkaar jàkkaarleeg yow. Mhm. ndaama ngay gis. mais su ngeen di bëre njool ngay bëreel moo tax bu la jàppee amoo ci as toutes les chances pour mu daan la. Mhm. donc mu doon combat boo xam ni xëy na dina nekk combat boo xam ni dina répondre aux attentes des amateurs ndax Sa Thiès ku ne xam ne ni mbër bu mbër bu c'est un je crois que te ndox du bàyyi yoonam te te vraiment làmb tamit boo ciy dem say mhm. atu ngay mën a ngay mën a posé wu mhm. attention Eumeu Sène du wax benn ah. benn xale bàyyi naa la ak ah, yàlla ni liggéey na de ce qui est sûr ce qui est sûr mooy ah. suivre ma entraînement yi mais su fekkee ni ma Sène entraîné na non Eumeu Sène moom combat bu ñu yaakaar ni day daanu moom du daanu noo ko ngay jàngatee la combat. waaw man li may jàngatee combat bi mooy euh, comme li ko Khalifa waxee sànq rek. Hmm. ama seen neexul euh, bëri. Hmm. parce que mbër yi gën a sérieux Sénégal. Hmm. si la bokk. am na hygiène de vie. te doo gis muy muy tambaabal. làmb raar nga gis Eumeu Sène ñëw si làmb barewul de xanaa écrit waa Pikine yi ñëw mu ànd ak ñoom mais su dee sérieux su dee bëre ama Sène mën na ko lool mais il faut mu xam benn affaire xale lay bëril mais xale bi benn cat laam yaakaar nañ ku taxaw si làmb ji moo la moo la man hmm. Sa Thiès daanuñu daanu yëpp yàkkamti loolu ba pare Sa Thiès il faut mu éviter dóor buy dóor dóor laaw boobu muy dóor parce que yu daanu yëpp si laaw bi la hmm. day laaw rek waaye duppee rek bu luppee rek hmm. ay dugg waaw booy luppee waaye dugg te Eumeu dugg du taxaw ni Reug Reug defoon Bombardier la koy defaat. Mm. Eumeu ku ma xas a dugg suuf nga jëm rek. en tout cas laa mujj daal noonu laa gis. alors Thier naka nga jàngatee combat bi. waaw bu ñu waxee Eumeu Sène wax Sa Thiès dafa am jàngat bi ñu ciy def. Mm-hmm. jàngat bi njëkk ci Sa Thiès. Mm-hmm. day bëre koo xam te ne dafa daan magam ñaari yoon. dégg na am na ku fu ñu wax ne mu ne bëriwul ak bëriwul ak euh, wala yu mel noonu. Mm-hmm. mais psychologiquement loolu lay des si bopp bi. waaw. loolu mënul ñàkk bañ a des ci boppam. mais dafa nekk mag bu am fulla ak xale bu yaafusu mag bi dafa am fulla ba mu teg ko tey fi mu toll. mais xale bi dafa yaafusul ba mu am li mu am tey. mais ci gàttal daal pour pour bañ a jël temps. Sa Thiès bu mënta daal am na seen na seeti leneen. na seeti leneen kan mooy favori. man Sadio Sadio laa jox favori. Khalifa kan mooy favori. Euh, man seet mooy favori bi. Euh, Père Atoumane kan mooy favori. bon man am naa yaakaar ni Sadio mën na ko daal. mën na ko daal su évité. non favori lañ la laaj de Père. Ah? favori bi lañ la laaj. alors le grand le grand expert. lay jàngatee combat froidement. waaw euh, li wóor ba wóor mooy. Hmm. amateurs yi am nañu combat. waaw vraiment kii moom combat la. Mm-hmm. xam nga dafa nekk mm-hmm. Sa Thiès muy mbër boo xam ne mm-hmm. kenn du ko daan mooy daan boppam. waaw man Sa gis combat bu nit defee lu ko war daan moom mooy daan boppam. léegi nag xam ne kii moom munu am excès de confiance munu ko xeeb. kon dina xoolaat stratégie te bu xoolee stratégie ànd ak dal def li ko sant ku naqare daan lay doon. waaye aussi moo ngi bëree ki nga xam ne nag moom. mooy mbër c'est-à-dire que Eumeu Sène mooy mbër xam nga lu tax mu nekk mbër. Eumeu Sène yaramam mooy wax. waaw yaram bi mooy wax. Mm. Eumeu Sène bu nekkee si combat. bopp bi dootul xalaat. <laughs> yaram bay xalaat ay la loolu la ñu bëgg si combattant. c'est ça c'est-à-dire que ñun mm. léegi ba nga xam ni. Mm. dootul xalaat. yaram bi moo koy xalaatal. moom dafa àgg si dafa bokk si combat si mbëri nga xam ni. Mm-hmm. yaramam mooy wax comme ay ñoom tafa euh, Tafa Gueye. Tafa Gueye la la gisee dire que ñu nga xam ni. seen yaram moo leen di wax li ñu war a def loolu la ñaan mm-hmm. moo tax ma ni combat dëgg moo ngi nii mm-hmm. li mën a li mën a Eumeu Sène Balla Gaye moom euh, kii tax euh, Sa Thiès mm-hmm. moom man wóor na buy moom moom mooy def mooy def erreur bu ñëpp di gis bu daan booba léegi nag am na benn atout mooy jeunesse bi parce que toujours dama koy wax espoir xale moo ko moom bool waaw xale nag bii nag tey. Hmm. dafa dajeeg mag comme ni ko ji bi waxee. dafa dajeeg mag bu. yaafusul bu hmm. donc. kuy favori. man moom gis mu du xam man dama ragal wax parce que je je suis un mauvais parieur. Eh. <laughs> mais daal. Hmm. bu neex la. et li ma si gën a neex nag mooy ñaari esprit yu positif lañu. waaw. ñoom ñaar moom. respect mm-hmm. dañoo dañoo positif c'est-à-dire que seen euh, ay bul faale la sa c'est-à-dire que dañoo dañoo amuñu benn. c'est de la ñu daal. parce que man ñun ñëpp ñoom ñaar ñëpp recevoir naa leen. Euh, si commission bi. mais dañoo positif. c'est-à-dire seen xel. dafa rafet dafa rafet vraiment dafa rafet merci beaucoup bu leen entourage bi yàqu bu leen bu leen entourage bi polier dañ leen bàyyi naturellement ñu dem mhm. d'accord léegi on a on a fini avec ce thème là assez important euh, temps moo ñu xooj parce que ñaari combat yooyu vraiment waroon nañ ci gën a xóotal waroon ci gën a développer parce que ñu fi nekk ay borom xam-xam lañ mais comme aussi on joue avec le temps mun nañu finaliser les thèmes là dugg si bonus euh, bonus xibaar set déjà ñu ngi nuyu ñi nga xamante ni ñu ngi apprécier Mor Diouf euh, le grand promoteur moom mooy organiser le 4 euh, le 4 mais euh, ngi tëgg ay xale yi am solo ñoom fourrière ñoo fay bëri moor ñu ngi lay jaajëfal yow tamit fi nga teg sa tànk foofu la donc ñu nuyoo le grand champion Pape Diouf ancien boxeur ancien lutteur également ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar donc dañuy song le bonus de xibaar so xibaar set d'abord madame euh, euh ñu jingle bi euh, transition maanaam bonus euh, xibaar set mm. donc bonus bi lii la euh, on a une nouvelle ministre des sports Ndeye Ndeye Khady Gaye ah Khady Diène Gaye Khady Gaye donc dafa mel ni xam nga ko kan mooy kooku waaw ministre bi euh, xam naa parce que bokk nañu liggéey ministère hmm. euh, te lamb tamit euh, en tout cas waa waa Ndakaaru xam nañ ko. ah, ah ndax yóbbu na délégation Dakar drapeau chef de l'État deux fois. ok donc waa lamb mënuñ ko xam. Hmm. si gàttal daal li mu mën a wax mooy. Hmm. xam na texte yi. Ah, liggéeykat la. te jub na. te jub na waaw waaw ma daal loolu moom. mën naa ko wax te xam naa ni ñëpp ñu nekk ministère sport mën nañu ko wax xam na texte yi bu baax a baax. liggéeykat la. Mhm. te jub na. Père waaw man nag euh, ministre euh, am comme ni ko Souleymane waxee rek ma it xam naa ko. Mhm. parce que bi ma nekkee fédération chargée des compétitions. Mhm. moom moo yore woon moo doon inspectrice régionale Dakar. Euh, li Souleymane di wax laay dëggal ku am fulla la ku am fayda la ku am. le premier mai kenn du liggéey kenn du jàngi kenn du dem fenn looloo tax jàmbaar production woo leen ca arène nationale daal di boole ñaari génération yu bokkul déglu leen bombardier le B52 de Mbour toujours roi des arènes aller ak retour di ndaanaan kullu faddalin moom nag la ñu jël daal di koy booleeg xale bi nga xamante ne nii bi mu duggee ci làmb ak léegi déggagul mu ñëw kooku nag mooy doomu Parcelles Assainies ñu gën koo xam ci franc super franki def lu ne ci lutte sans frappe combat spécial bi war dox ci diggante Youssou Ndour di doom ci Balla Gaye numéro nekk ci école de Balla Gaye mu war a jàkkaarloo nag ak xale bi gën a xajam ci génération am Talfa Gamer bi Mamadi Ndiaye du xam ngeen ko dina fa jàkkaarloo ak Ndiaga Thiam Fadam Junior dina fa jàkkaarloo ak Jaasi Pël Bay Jóob Safara bu Géejawaay dina fa jàkkaarloo ak Ñang Baalo Caatu Piol jàkkaarloo fa ak Caatu Limousine Julo dina fa jàkkaarloo ak Caatu Yëmbal Usine bu Nangal ma jàkkaarloo fa ak Boy Fandeen Boucher numéro 2 jàkkaarloo fa ak Frambeur Aigle dina fa jàkkaarloo ak Dun bu Faas mbokk yi loolu yëpp ngeen mën ko am ci bésu le premier mai ci arène nationale en live point com du ngeen ko daw leen gaaw jënd seen ay code balaay xat entrée supporter 2500 francs amateur 5000 francs loge officielle francs ciy jàmbaar production tooñu ñu kenn te bu ñu tëggee ñëpp békk